ndeysaan si misil waay oo oh. bu baax a baax a baax jërëjëf yaay booy ndax lii mooy cosaani lamb lii mooy cosaani euh, Sénégal ndax lamb du am la ma la waxoon du am du am yan yàlla sàmmal yan yàlla dëgëral yan yàlla mën na gudd fan wér-gu-wér ñu gis ñu waaw. xoolal lii. waaw ki ni alal yàqate seen i bagage tey gis nga grande Dakar te li ñaata oto lañ fi tëj ñaata oto lañ fi toj ñaata bagage yi jàmbur lañ fi jël yàq ko voilà donc dañuy ñaan rek mbër yi ñu dellu waxtaan naat ak fan si club yi sinon lii bu na rek continuer état dina ci jël ay responsabilité te responsabilité yëm ci jël aussi du neex kenn la mais si dañ lay teg ay daan bu njëkk euh, bu yàggul estat xale yëpp doon bëree seen i yàq siège mais dañ leen sanctionné wax naa keroog le ministre Lamine yaa nga foon fekk làmb commencé wul am poursuite pénal rek moom lamb du ñu xam seen bopp CNG dëgg la baax na day dagg mbaamu sanctionné mbëri mi mais foog moom des poursuites parce que li ñu yàq ay alalu jàmbur la li ñu yàq ay moomeelu jàmbur la lamb image am du lii lamb c'est notre culture lamb fecc la ak tëgg ak way ak bakku amateur yi solu ñëw bégee may géwél yi xaalis seen mbër bakku ñu kontaan seen mbër daan ñu kontaan ki daanu ñu gàddu ko mais vraiment vraiment vraiment la tey sama xol dafa métti trop barke yonent yàlla Muhammad. waa déedéet mais ku bëgg a xeex sax demal géej ci xeex yi mais lii wala écran géant bi ñu tojal waa groupe Futurs Médias écran géant bi ça coûte des millions oto booy ñaa mu ngi noonu xamuloo kan a kan a yàqule je suis vraiment désolé mais lamb waral dépassé la ah mais war na fi wees mooy li ma wax léegi bu ñu toogee ba au vingt-et-unième siècle <laughs> lamb ji dund lii donc y a problème y problème donc yan façon nit ñooy ñëw ci làmb ji yan façon nit ñooy <laughs> ñooy dund làmb loolu problème la donc doy ne waar. ay oto jàmbur ñu jàpp ko yàq ko nii ci làmb lii dafa ñaaw. buur lii lii du image bu rafet ci làmb. c'est pas normal ji lii mu ngi noonu vraiment. lii ñëpp a koy déployer ñëpp a koy déployer bu billaay walaay talaay. c'est décevant. c'est décevant mm-hmm. sincèrement. koy def buur pour oto sax amuñu ko. mënuñu ko jënd barki borom Touba. tey mu ngi nii donc face to face bi li wóor bu wóor mooy que du amaat. du amat du amaat. bo yaa ñibbi na parce que alalam yàqu na tey mu ngi nii. ñu yàq kaay xoolal lii ay alalu jàmbur xoolal lii. ñoo xamante ni buur amaana sax duñ ay duñ seetaan lamb. ci quartier jàmbur bi ñu ko defee Grand Dakar musul am yii boîte bi yàgg na fi yàgg na fi plus de quarante ans lu mel ni musul am dëgg la. ndeysaan xool leen